panade bi am képp kuñ jugé dana am ñu d'accord ak ñu d'accord yaa que des juges indépendants juge Thion war nañu ne dafa indépendant si fay war nañu ne dafa indépendant yow booy jàngi nit fekk participer wuñ ci nga jàng ba jàll sa jàll sa concours dem ba doon juge diw nit ñëw di la def loolu nii na def la naa ngi koy def loolu yoon président nekku ci yow la neex kon indépendant de su justice man ma nangu président jógee fa naan mu ngi koy génn maintenant lu luñ bëgg léegi ñu bàyyi leen ñoom i neen seen groupe booboo gën garaaw sax ñoom i neen ñu nekk fa moom moo gën a garaaw groupe de clan lay doon groupe de personne boo xamante ne ku jiite mooy tànn ñu mën a liggéey moom loolu nga lay liggéey liggéey ak loolu fu réew jëm boobaa moom ref lu mu bëggoon ci justice moom en tant que président mun du ko mën am parce que nekkul ci biir mbir boo koy xeex da ngay toog ci biir bu amee leneen xam ne tey jaaxal na la mbir mi nga ne ko ah lii jaaxal na ma si mbir mi bëgguma lii bëggee ma ko ni nii laa ko gisee man loolu laa loolu laa gis nga boo xoolee comme kii présidente Aïda Mbodj mu ngi koy wax léegi léegi léegi léegi élection législative yi passé war nañu ne ñoom victime la gis nga ci ba ñuy defar liste yi sax am nañu def benn jurisprudence bu grave boo xam ne dana ko ne parce que conséquence ne moo ñu xamal ne titulaire man remplaçant yi mën nañoo remplacer titulaire léegi man élection yi di ñëw su ma neexee indi benn lis mm-hmm. teg ko fi te liste nationale bi boobu moo baax liste département Dakar moo baaxul ndax dañoo génnee jigéen dugal góor te dañ boo génnee góor góor nga war a dugal boo génnee jigéen jigéen nga war a dugal lu tax ñu bàyyi bu dakaar bi mu jàll ñu éliminer bu du liste nationale bi dafa amoon problème dafa xam nga dafa am benn problème politique boo xamante ni moo fi nekk biir ci biir réew mi te ku amul tuuti imaan da nga def loo xam ne dañ la ko xeebe baa nga def loo xam ne dañ bu ñu am xam nga nit ñi dañoo jàll mën nga koo gëm te doo ko kii dafa gëm yàlla wóolu ko. dafa gëm yàlla. ba pare wóolu ko dëgg la teg appliqué ko nit ñi teg ko bët. appliqué ko nit ñi teg ko bët kon ça veut boo gëmee yàlla pression mën si yow fifteen. ak nit ñi te yàlla da ko koo wane tam. waaw ndax dafa dafa dafa dafa umé koor. Euh, kaso kaso korité korité pale tabaské pale démb démb ba guddee waaw li ma gën a neex ci wax ji nee na ana ana police